les prix c'est très difficile c'est très compliqué gis nga au niveau international ce qui se passe c'est que il y a deux, il y a deux volets sur les prix il volet souveraineté souveraineté mooy yow da ngay produire loo xam ne mooy la majeure partie de li ñu consommé si sa si sa réew mm-hmm. tey boo jëlee ceeb bi nga def ba produire maximum ceeb ba nga xam ne euh, sénégalais yi ceeb bëpp bu ñu soxla dañ koy jënd ci biir Sénégal. Mm-hmm. du soxla ñuy génn. du sox du ñuy jéggaane ceeb. Mm-hmm. mais il faudrait que sénégalais yi consommer ko. Mm-hmm. mooy ça c'est une autre difficulté doon wax. oui c'est une autre difficulté consommons consommer ce que nous produisons. ah oui attention c'est c'est c'est très compliqué parce que comme j'ai dit je travaillais sur les exportations. sur le commerce et c'est très complexe. Euh, tey euh, les sénégalais bu ñu jógee jëlee même sur le riz importé. boo jëlee le riz riz importé aujourd'hui subvention bi dafa doon dugg ci riz importé brisé non parfumé mhm. parce que le calcul qui avait été fait c'est que majeure partie des sénégalais loolu la ñu la ñu doon consommer mais malgré loolu parfumé beeg yooyu dañ ko daan dañ koy dañ koy dañ koy importé mhm. je dis pas que c'est c'est pas logique mais mais mais xam nga chacun est libre de consommer ce qu'il veut loolu ci mbirum euh, ci mbirum euh, ci mbirum ceeb bi la mais mën naa ci wax noonu ci ci ci gerte mën naa ko wax ci ci ci diwlin mën naa ko wax ci ci euh, nu mu tuddati ci meew et cetera mhm. mais di nga dem ba benn instant fi nga koy jëndee yow su fekkee ne lu bëri da nga koy da nga koy da koy importer njëg li bu yokkoo loo subventionné subventionné njëg li dafay yokk fi di nga ko subir waaw c'est comme l'oignon et cetera mhm. oignon par exemple soo soo jëlee Sénégal dañu jël 10 mois yoo xam ne ce qui est ce qui est même difficile à faire. Mhm. su fekkee ne yow da nga signataire OMC. 10 mois yoo xam ne dañuy gelé ba nga xam ne amuñu woon du fi dugg. Mhm. mais même pendant cette période la da ngay gis ne. sénégalais yi si boppam surtout les sénégalaises dañu naan ah oignon bi jógee Hollande. importé moo leen gën bi dañ ko soxla parce que mhm. euh, bii par exemple variété Mercedes dafa bëri bëri bëri ndox. variété violet de Galmi dafa tuuti. Mhm. donc variété bii la ñu gën a mhm. soxla et cetera. et ñoom dañu am ay subventions yu leen di permettre ñuy wàññi njëg li muy gàllankoor tey producteurs yi nekk. donc réew du affaire bi da ngay ñëw rek. n'est n'est n'est n'est n'est c'est mathématique un plus un égale deux la gestion elle est difficile mais progressivement lay améliorer les choses et ils commencent à s'en rendre compte contrairement moi, à ce qu'ils nous vendaient bi ñu nekk dans l'opposition moi, moi, moi je sais pas mais comme j'ai dit ils l'ont avoué comme comme j'ai dit moi comme j'ai dit moi ce qui est important pour moi c'est qu'il y ait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ouais. maintenant moo tax secteur bi nga wax noonu parce que peut-être ñu bëri ñu ci des xawma leen mm-hmm. mais secteur bi nga wax noonu c'est-à-dire commerce industrie ouais. qui connaît, à savoir euh, le ministre docteur Serigne Gueye Diop, moom mm-hmm. il est il est très bon en tout cas en tant que que, que professionnel. Uh -huh. donc préjugé favorable rek laa mun am ci moom. d'accord donc euh, xalaat ne donc il fera il fera. un bon travail.